waaw combat nag li koy taxawal mooy avance joxe seg yi indi contrat yi ñu signé ko ñaan yàlla ci diir bu gàtt ñu régulariser comba bi ndax seen say ubbi na ñu régulariser combat yi ñu mën ko bëre ci diir bu gàtt ndax ñaari mbay itam war nañu mën a bëriwaat ci kàttanu yàlla balaa làmb saison bi tëj ñoom ñaar kenn ku ne amaat combat. non waa Pikine ko ko daan parce que Falaye Baldé 2 boo ko fekk buntu këram daan ko fa comme mbapat mi wax naa moom la daanoon ama mais Falla dafa fàtte ne Falla Baldé 2 da ko fekk seen biir kër bëri na ko ba mu sonn mu daan ko kon ci bu fekkee ne loolu looy leen ñun du ñu indaale loolu li ñu indaale mooy dañoo waroon a bëreeg moom bu yàgg avant ñooñu di bëreeg ñoom dañoo waroon a bëreeg moom bu yàgg doon ko dëkk muy koo xam ne kii suñu adversaire la bon boo xam ne bii ñëpp xam nañ ne dañoo war a mën a bëree combat dem na ba yàlla boole leen ñoom ñaar war nañoo mayante xaalis ñu bëri ñoom ñaar te xam ne war nañoo bëri benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ndax ñoom ñoo ñu soom ñaar combat bi ñëwagul waaye combat bu neex la war a doon. combat la boo xam ne bii bu ñu bëree ba pare sax normalement amateur dañuy yàkkamti ñu dajewaat ñoom ñaar non non jëluñu jëluñu avance su Tapha Tine ay règlement la ñu waxoon xëy na doon am réglage bu ñu amoon rek bu ñu war a def ak ñoom waxtaan ak ñoom promoteur bi ñu waxtaan ak moom bu sotteegul ñu gis ne ni ñu taxawe woon ak ni ñu war a taxawee xëy na am na nu ñu waroon taxawee taxawuñu noonu xëy na waxtaan war naa mën a am am ñu génn ñëw ñoo xam ne ñu dañu ko yéene jàmm moom am bëgg mu am xaalis bëgg mu am yegsi fu mu yegsi ndax dafa liggéey ba yegsi fu mu war a yegsi mais ba ñu demee itam xañ na promoteur boobu woote ne kaay leen jël si avance yi waxtaan wi loola waroon ñu dellu siwaat xoolaat ne ah li ñu war a taxawee nii la nañ gisante ak promoteur bi ci diggante bi mais jotuñoo jël benn dërëmam du ñaar dërëmu kenn ñu la preuve mooy combat ba ci nawet lañ daaw la ñu waroon wax nañ ko mën ne ko non du ma mën nawetoon avance mën nañ nawetoo ama xaalis bi ma ne ko du ma nawetoo xaay bi da nga am ñaari adversaire xam ni da war a bëri moom muy Modou Lo mii di bëre ak Eumeu Sène ak Lac de bi di bëre ak Boy Niang ñu daan ñaari mbëri booy ñaari mbëri Pikine ñaari mbëri Pikine yëpp ñaar ñi leen daan bëgg nañ leen muy Modou loo muy Lac de kon ñoom ñaar kenn ko ci am baax na bu dee Modou Lo moom loolu la yàlla dogal noonu la ne bisimilah bu dee Lac de waaye comme Modou moom taxaw na dégg naa sax ñu ne moom nee ñu pare na wala pare naa parewul néanmoins ci kattanu yàlla am nañu yaakaar ne bu soobee yàlla du yàgg dara bu soobee yàlla yéen ngeen di ngeen yëg xam ne xew ndax waaw mais xam nga euh, dóor mu daanu du bëree moom ama doon na mbari mu daanu ba tey loolu jotewul dara bëre dafa am foo xam ne fa lay nekkee mbër mi en fort mbër fort en fort da ngay jàppante biir bëre bër mu door asaar rek la da ngay jot ci padd rek daanu asaaroo foofu Modou Lo da dóor Eumeu Sène Eumeu Sène ay mbokkam newoon ne ko dóoral Modou foofu mais yàlla dogal Modou Lo dóor ko fa rek loolu rek la combat bi yegg yegg si foofu waaye ay mbokkam yi jege Eumeu Sène xamoon nañ ko ne dóoral foofu Modou Lo non xamaguñu fayu waaye li wate woon dañoo ñaan yàlla ci carton yàlla combat bu ñëw ñu doore ko jël bu gaaw bu neex bu rafet ñibbi si Pikine